loi d'amnistie euh, ñu ngi agiter euh, le vote d'une euh, d'une loi d'amnistie ça devrait être un projet de de loi euh, qui pourrait être adopté en conseil des ministres et qui va concerner la période 2021 en tout cas à partir de 2021 les problèmes politiques xalaat nga ne c'est une solution c'est une bonne solution projet bi di gisaguñ ko. <coughs> mais lan nga ci xalaat. Hmm? parce que nit ñi ko ci nit ñi ñu koy wax mais apparemment dañoo ne woon tey lañ koy génne ci conseil. des génnewuñu ko tey en fait non seulement gisuñu ko mais amul benn voix officielle bu <coughs> bu ci waxagum. de toutes les manières euh, gis nañ fi dans le passé amoon na fi ay loi si yu fi amoon am na lu mu am na lu mu jur ba léegi. benn jiixi jaaxa parce que ni ñi xamuñu bi fi mujj moom mooy la loi Ezzan voilà euh, te ba léegi leeraluñu euh, crime ci affaire Maître Sèye euh, jàpp naa ni am na ay événements yi fi amoon ci ñaari at yi passé sénégalais yi war nañu xam. dëgg bi voilà war nañu xam dëgg bi d'abord. parce que balaa ñoo réconcilier woog yooyu nañu xam dëgg bi. vérité d'abord xam dëgg bi. il y a eu des des de part et d'autre am na ay manifestants ñu ne ay euh, force de l'ordre ñoo leen rey dañoo war a poursuivre loolu am l'attentat de de Yaraax voilà am ay kër yu ñu lakk am vraiment dégg des crimes qui ont été commis dana baax sénégalais xam dëgg bi fan la féete su ñu xamee dëgg bi ba pare nag ñu xool nan la ñuy def dans le cadre d'une réconciliation euh, voilà je je avant tout avant tout nañu xam dëgg nañu liggéey pour xam dëgg voilà ba pare te tamit suñu amnistier man je pense que am na ay faits yu ñu war mën a amnistier y a des faits qui sont euh, délictuels jàpp naa ni ces faits là mën nañ leen amnistier du poser problème kenn mais des faits